Info Sénégal. la CNT sénégalais. mbokk yi da leen jàmm ci seen chaîne mag bii di Sénégal info ngeen baaxoo di fii na seen i euh, xibaar euh, tey euh, di alxames fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai atum 2024 ñëw ak yéen ci xibaar yi guddi gi. koy tàmbaleeg Ousmane Sonko njiital jëwriñ yi xamle ne def na càmbar lu toll ci 717 milliards yu ñu wax ne def nañ ko ci xeex wal mi maanaam inondation bi jàpp na moom Ousmane Sonko mi doon jiite tey ndajeem jëwriñ yi jëm ci. ci fegu ci wàll mi ci nawet bi ñu dëgmal ne nguuruk Sénégal dootul nangu yenn jëf yi maata yi ñenn ci askan wi nekkee te kenn jàppalewu ci lu dul ñenn ñi nekk ci wànqaasi nguur gi xam leen ne xaalis bu ñu luubal des na ko càmbar dellusiwaat ko dugal ko ci yi yittey askan wi moom usmaan Ousmane ko xam leen ne li ëpp ci jafe-jafey wal mi mi ngi jóge ci sunuk ñàkk yar ak sunuk càggante dale ko ci nguur gi ak lenn ci askan wi ginnaw bi premier ministre bu Sénégal di Ousmane Sonko gont na ca UCAD di université Cheikh Anta Diop mu bok ci sembu yi Pastef yi di amal and ko délégation insoumise yu France ci Ndakaaru fukki fan ak ñeent jàpp fukki fan ak ci mai atum 2024 ci euh, Jean-Luc Mélenchon batay ki ci xibaar yi ak nganuk président Bassirou Diomaye jaxar fay mi Sénégal wutali réewum Ghana ak nigeria njëkkee kook réewum euh, Nigéria kilifa ak réewum Nigéria Nigéria dalal nañu dal gu mucc ayib ca naaw Amady askan wi kii di Bassirou Diomaye Diakhar fay njiitu réewum senegal ci tukkib liggéey bi mu fa amal ci seen waxtaan ñaari njiitu réew yi xoolaat nañu lëkkatoog ñaari réew yi maanaam jëflante ñaari réew yi jokkalante it nañu ci li xew ci yenn réew yi nekk ci seeni wet ba tey ci xibaar ak wàllu yoon Ousmane Diagne di jëwrin ji ñu dénk yoon ci réewum senegal ba muy àdd démb ca ndiisuk jëwrin ya wax na jëm ci bi yoon war a am ci càmbaruk cour des comptes ci mbirum junni milliards yi covid yi nu fàttali ne rapport boobu tudd na kilifa yi politique yu bari ci nguur gi fii ne woon ci lu soxal njuuj njaaj luubal ak saax-saaxi alal jooju na toon ngir taxawu ñi loru woon ci mbas mi mu mel ni kon yoon dina jublu balaa yàgg ci topp nit ñi nga xam ne jot nañu leen tudd ci lu ñu tu yooyu ca Médina Yoro Foulah la ñuy jëm xeex bu metti ba fa amoon dox diggante ay ndaw ci benn xew bu ñu doon amal muy dara bu ñu doon amal ca Sinthiou Malafie di dëkk bu nekk ci bokk moomeelu dingiraay ci gox bu Médina Yoro Fula xeex boobu nag daa mujjee ëppi yoxo ba am ku ci ñàkk bakkanam ak ñu bari ñu ñu teg loxo Boubacar Baldé di ki ci ñàkk bakkanam ab sayeful la woon bu amul doom maanaam célibataire ci guddik fukk ñett jàpp fukk ñeent ci weeru mai atum at lañu ko jam paaka ci euh, xol bi mu faatu ci saasi jamono yii nag ñi nga xam ne ñoom la ñu jàpp ne ñoom ñoo def googule euh, ñaawteef euh, teg nañu leen loxo xibaar yi la woon mbokk yi ci Sénégal info ñi ngi leen di jaajëf lu baax a baax di leen dig daje beneen jotaayu xibaar jërë ngeen jëf ñu fanaan jàmm ñaan yàlla tey dama bëgg ñu njëkki ko ci li nga xamante ne moom mooy diggante seet ak sarax ndax dégg naa ku xam seet nga dégg naa ko xam sarax nga dégg naa ko xam tegtal nga dañuy faral di dégg sax ñu naan bu fekkee ne yow da bëgg xam sa biddiw demal ci seigne Modou tiaré mu xolal la nga xam sa bidiw nit ñi bàkk nañ ci walu bidiw manam mbirum tabiha te nit ki bu bidiw am xam saraxam su ko nexé sax baña sangu digënde set ak bidiw ak sarax la bëgg nga tojal ñu ci ginnaw Sénégal yépp bàkk nañ la né borom xam-xam nga. batay mi ngi aju ci ki nga xamné dafa bëgg a ay mbiram. Mm-hmm. listixaar à distance générale. Mm-hmm. koku war nga xam jëmmi nit ki tabiaam war nga xam jëmmi nit ki. Mm-hmm. bidiwom boko ko nak ci ngay xamné ki kii lii ak lii ak lii la war a génnee sarax waaye képp koo xam ne fexe nga ba dem ca ka ko xam te man ko fexe ba mu defal la seet boo xam ne seet bu jaar yoon la lam la wax te méngoo ak li nga xam ne moo nekk ci yow nag maanaam mu gis la gis goo xam ne gis gu wér la bu la tegtalee sarax nga def ko incha allahu taala yow mën nañ